principe défenduma sama intérêt bopp dama ni man li ma jàpp ci démocratie les courants politiques significatifs war nañu bokk mun ma ko am ka nga xam ne day défendre environnement wala changement climatique du ci mën a bokk te mu nekk mbir moo xamante ne moo lëmbi àddina bi mënuma jàpp mënuma comprendre benn socialiste nekk candidat mënul bokk un libéral mënul bokk un autre moi pour moi c'est les courants qui sont importants. mais courants yooyu est que askan bëgg nañu bokk tamit. ah est-ce non j'ai dit les courants en question la ñu ci ëpp amoon nañu les parrainages dem conseil constitutionnel. Hmm, mais parrainage est-ce que nga ban fa demee nag fa lañ leen CP. Hmm. ah mais te ñoom te ñoom ni ñu leen CP jàpp nañ ne. ja teguwul ci yoon. mais y' a quand même des problèmes Jérôme il faut le reconnaître. ci yoon mais problème yi ci ñëpp la. mais teg nañu parrainage mu normal quand même. teg nañu parrainage loolu loi moo ko teg. Mm-hmm. ànd nañ ci. Mm-hmm. dem nañu wuti ko. am ko indi. marché mm-hmm. deuxième. au contrôle. tirage au sort c'était cinquième. yàlla def. bi ñuy def contrôle. kii nekkoon deuxième muy ak Ibou Soumaré contrôlé wuñu ko. ki nekkoon troisième Ousmane Kane contrôlé wuñ ko ki nekkoon quatrième Ousmane Sonko son avocat n'est pas venu man mi cinquième je me suis en deuxième position bien qu'être en deuxième position on m'a trouvé neuf mille cent doublons externes pratiquement nee nañu le cinquième de section ne dafa jël waaw waa léegi loolu c'est trop tôt

ñu ne ma am nga 18 000 yoo xamante ne ils sont introuvables dans le fichier te ñëw ku nekk jox ma carte d'identité bu am numéro carte ci ci ci. ñu ne ma 5500 doublon interne ñoo xam ne da nga leen def ñaari yoon te man ma yore logiciel boo xam ne bu ma la bindee deux fois dafay rejeter sa tour. d'accord j'ai des raisons objectives de contester. loolu moo tax ma contester. Euh, mais bu fekkee daanu woon naa daanu boo xam ne xam naa nii daanu naa. nangu la man dama koy nangu doo wax d' accord léegi mais nangu nañu manquement am na man je dis que am na ñoo xam ne xëy na amuñu problème bu parrainage ndax logiciel lu conseil constitutionnel bi kenn xamul euh, nan lañ ko paramétrer mhm. am na ci ñoo xam ne Jérôme quand liggéey nañu ci parrainage lu tax ñu jàpp ne yenn problème yi waruñu ko am et aussi am na ci yoo xam ne c' est pas logique du tout mais manquement yu yëpp maître est ce que à la fin mënuñu ne ça a été préparé pour que bu ñu yegsee fii tey ñu ne non parrainage parce que tout le monde est d'accord que contrôle parrainage baaxul mais est-ce que mënuñu jàpp ne c'était planifié d'avance pour que su ñëwee ba fii ñu ne non coow li dafa bëri problème yi dafa am est-ce que euh, pour ça waruñu ñëwoon dem ci élection après bala ñu yegg ci beneen élection ñu ñu ñu ñu ñu ñu régler ko parce que bu ñu demaatee le 15 décembre qu'est-ce qui nous dit que yeneen problème yu gën a garaaw yi duñ ko génne. bu ko defee ñu ne non non élection mun a am parce que commencé nañu déjà <laughs> dàq. pour des irrégularités pour des manquements c'est ça en fait la crainte principale. Fatou Fatou hmm. lii dëgg dañu war a dellu ci suñu cosaan démocratie. cosaan bi moyen hmm. ñaari forme candidature bu amoon. candidature présentée par un parti. ou une coalition de partis. Hmm, indépendant indépendant daal. lañ doon laaj. nga indi parrainage. kon da ngeen bëgg ñu am ay 500 bu ñu amee nañ def nañ def un bulletin unique. unique mm-hmm. ku nekk am son numéro. yoo xam nga ton candidat c'est le 125. xam nga non mais a sa photo. Ah, léegi ci boo xam ne sama personne ñetti photo bu ndaw est ko mën a a xam soo amee soo amee numéro on un photo. donc ah le numéro on met la photo. bi mooy solution comme ça y aura plus des éliminer. on peut aussi ajouter d'autres critères mën nañ ne ma man am na ñoo xam ne dañu doon yëngu ci politique di yëngu sax ci engagement citoyen di yëngu ci engagement sportif leneen am ñoo xam ne dañ tëdd seen kër di rek seen xaalis musuñu def dara jox leen ma réew mi. mais di moom bu continuer 15 décembre yeneen problème yu gën a garaaw mooy génn. ñu dàqati élection ko dàqat. léegi il faut qu'on sur les critères. ku dàq pour mooy que ça boo demee gis lu gën a garaaw da ngay xam nga la cour africaine des droits pas la cour africaine la cour de la CEDEAO mhm. nee na loi sur le parrainage bi c'est ça viole le droit de participer librement à l'issue des charges publiques c'est violer droit de l'homme demoon na Sénégal depuis mille vingt et un avril deux na ko foofu def ko combat boobu kenn moo woo yaa ko mel Ablaye Tine kii la mené ici mu weti ba lii rattrapé ñu tey te kooku ñu waroon ko waxtaane bu yàgg léegi nag jot na nag ñu waxtaanee ko nanu dellu ci sosaanu ci Sénégal fu mu nekkoon bi Macky Sall di jël pouvoir bi yaay pas de parrainage su amoon parrainage peut-être que moom am ñii ñoo ko fi créé Macky Sall moo ko indi ak Major Fall Ismaël Major Fall son ministre son constitutionnaliste moo indi problème yëpp. d'accord léegi yow parce que yow mënoo yor sa parti quand même. muy fonctionner xam te ñëpp constitution ni les partis concourent à l'expression du suffrage maanaam ci ñoom la ñuy jaar pour falu ñoo ni parti bi du dem élection ay nit ñooy dem léegi léegi suñu weesoo foofu noonu président ci euh, ni ki démb ci euh, conseil des ministres am na waxaat na ne euh, na gouvernement bi taxaw ci élection bi ñu amal ko ca data bi nga jàpp waaye itam dialogue bi nga xam ne moom moom na na ko woote Euh, gars yi mën koo amal ci euh, ci ci anam yoo xamante ne daal ñëpp danañ ci gis seen bopp ñëpp dañ ci mën a bokk waaye la ma gis démb ñi nga xam ne ñoom ñooy candidat yi te askan wi ñu bari jox leen bopp ñu am taxawaay gu mucc ayib ñoom nee neen duñ ca dem yéen nag ndax da ngeen ci demam. dama ni ku demul dialogue perte nga. Ah. ñun dañuy dem dialogue. te wax dialogue bi sax waxatuñu nekk dialogue concertation nationale la nekk. maanaam dañ ci euh, ñu bëri. ñu dul fas politique ngeen fixé surtout. peut-être bu fekkee da ngeen di dem et puis on fait comme avec ba ci mandaam bi jeex la 2 avril qu'est-ce qui va se passer yëpp ñu wax ko comprends dindi dem dialogue ci la ñu wax waxi dàq élection ñëw. dindi dindi parrainage. dindi parrainage indi yenn critères filtré parrainage si nañu indi yeneen filtre yu dul parrainage. parrainage kay mënuñu ko dindi. si mën nañu ko dindi. y' a y' a pas que y' a pas que ça comme filtre y' a d' autres filtres qui existent. comprends nga l' xam nga dafa am dafa am benn règle internationalement reconnue xam ne mu ngi charte africaine des droits de mu ngi ci déclaration universelle des droits de mu ngi ci pacte international des droits civils et politiques. Mhm. c' est le droit de participer librement pour tout citoyen à l'exercice des charges publiques nekk ba nga dëkk. am nga sañ-sañ bokk ci ñi wut les charges moo xam maire moo xam président moo xam lépp lu ñuy élection di joxe léegi nag buñ defee filtre filtre jaadu na ñëpp nangu nañ ko mais le filtre ne doit pas tendre à supprimer ce droit là un filtre qui tend à supprimer ce droit c'est un filtre qui viole les droits de l'homme il doit aménager ce droit askan bi ci askan bi mais askan bi c'est nous tous ñun ci lañ bokk nous on n'est pas des étrangers moi je suis pas Gambien que quelqu'un qui est venu de l'étranger je suis un Sénégalais ñi may liggéeyal di ànd ak ñoom. mais est-ce que yow balaa ngaa dem Jolof doo consulter say militants ak si sénégalais yi nga xam ne gëm nañ sa projet yow. mais dama gëm ne réew waxtaan moo koy réglé. mais est-ce que doo leen consulter ba pare. c'est pas la peine. jarul sa consulter ñoom gis nañu ni ñu def gis nañu ni ñu def xam nga. réew mi dafa laaj ñu toog waxtaan loolu mooy tax réew avancé réew yëpp dañuy waxtaan. d'accord mais réew boo xamante ne gërnaat mooy wax. xeet di tontu. mais waxtaan woo xamante ne kooku saawaay. mais waxtaan woo xamante ne kooku kooku yàlla ci yàlla musal soo leen soo ay yuuxu ngeen fay dellusoo mais loolu ndax waxtaan la. kat bi mooy dellusi ay yuuxu. ah mais gis nañ ñi nga xam ne ñoo defoon dialogue bi passé bi ñu ñëwee lan lañ def. ñoo tax élection ñu reporté leen. mais mais mais mais demoon dialogue l'histoire leur a donné Khalifa Sall était parti au dialogue on l'a qualifié de traître mais lui ça lui a permis de régler des choses. PDS demul xam nga. PDS demul woon dem na dialogue. waaw léegi mais mais mais. dem na dialogue mais li ko génnee c' est pas le c' est pas le dialogue en tant que tel. li ko génnee c' est l' des règles.

si c'est pas une crise politique c'est ñoo nekk di xeex. est-ce du rapport bee indi. crise bëgg a dem ni xaw vendredi de la libération. mais mais dàq bee indi crise bi de. lan moo indi. déclaration samedi bee indi crise bi de. un pays comme ça ñoom ñu nekk candidat. xam nga man xam nga xam nga Jérôme nga xam ne ne. lu mu dogal kenn mënu ca delloo ginnaaw. Jérôme président ñëw dellu si ginnaaw ne a nekk candidat. Jérôme est que ñoom tamit salfa ñu si à l'aise pour parler de ça. c'est pourquoi je ne dois rien à Macky Sall douze yi mu toog tii je n'ai jamais serré sa sax musuma nommé musuma jox xaalis musuma jox defal dara uh-huh. contrairement la plupart des gens qui gueulent ici ceeb lui doit quelque chose moi libre indépendant de lui demal ma ko fenn su ma xalaat lay joxe un homme libre indépendant uh-huh. je suis libre indépendant li ma gëm loolu lay wax uh-huh. kenn fayu ànduma kenn yàlla lay seet. ñu nangul la ko. comme dégg nga. Mhm. donc par conséquent dama ni la man dama gëm ni que ay njumte am na ci ni ñu contrôler affaire bi wax naa la les ñu nangul la ko. jàpp naa ni itam président bi wa moom c'est c'est c'est l'Assemblée nationale qui a proposé il a accepté ñu modifier affaire bi. le PDS était exclu. des élections. ñoo tooñ seen bopp. te nangu naa ne PDS c' est un grand parti am nañu droit aussi bu ñu la ne dañuy cartouché ci élection redoubler cartouché waat ñu wàcc. mais ñoo seen bopp du. waaw d' accord quel que soit mais ils ont ils ont le droit de dire non de s'opposer à ça. mais kan day jàll de se donner les moyens de changer jàll tamit. c'est ce qu'ils ont fait wax non ci report bi ndax ñoom dañoo dañoo. sacrifier seen bopp ba jàll. mais mais mais les ont dit ça ils ont dit non à l'Assemblée mais ils n'ont majorité qui l'a empêché. wax nañ fa noo di. jërëjëf Mbaye du la xew. dem nañ fa. ils ont dit non là mu indi coow ñu ne kenn du fi wote. finalement na a amené la force euh, publique. mu génnee leen. ñoom ñu am majorité décidé. la décision bonne ou mhm. il faut enterrer les constats maintenant nag. il faut que les il doit savoir où s'arrêter. Mhm. si vous continuez. mais tout le monde peut perdre. ok mais ku ci nekk daal jërëjëf dégg nga dama ne nit ñi ku nekk na xam fu mu yem. Mhm. parce que aussi y' a pas aussi dans le pays. ah du sànq moom laa mën a yem. d' accord jërëjëf pas jërëjëf maître donc les gens se calment. d' accord jërëjëf jërëjëf maître ñu ngi lay gërëm euh, avocat défenseur des droits humains. candidat recalé à l' élection présidentielle. nga àndoon ak parti R3D c' bien ça. c' ñoo la regard différent pour le développement durable nga xam ni ñoom euh, ci wàllu écologie surtout ak environnement la ñu gën a jublu jàpp ne itam loolu mooy avenir moo nekkoon sunu gan tey ñu koy gërëm bu baax maître jërëjëf. ci disponibilité bi ak leeral yi am na <laughs> qui